réew mi 24 mbokk yi yéen ko gis tey ji ca commune bu Golf Sud lay xewe waa Pire ñooy rek def seen caravane mi mu mel ñoom bàyyi wuñ benn yoon tegguñ seen tànk. ca kanam ñanga rek def seen base bo xamantene basiru jumaay fay mo ca nek ak Ousmane songo mu melne wa waa ak ñinga xamantene moy wa Pastef bi la ñoo bokku ben ambition waaye mi ngok kon tay ji mu melne rek ci 6 février 2024 bi ñi di waa mom moom tegguñ seen tank ben yoon ñanga rek def seen ab campagne wa seen caravane di doxal bu baaxa baax kon mu melne loolu la ñu nemmeeku ci Sénégal tay ji ginnaaw ba nga xamantene rek ki di euh, Macky Sall dal di rek reporter li nga xamantene mom moy election yi waye mu melne ñom wa waa mom gis nañ rek ak semaine bi yëpp ñoom ña def seen caravane bu baax a baax rek ca kanam ñu daal di yor photo ki nga xamante ne rek moom mooy président Ousmane Sonko ak ki nga xamante rek moom mooy Bassirou Diomaye Faye mi nga xamante ne jamono yi ña nga ca prison bu Cap Manuel loolee la ñu nemmeeku tey ji kon waa Pire ña ñoom tegguñ seen tànk ña rek wéyal bu baax